foofu sax mën nañoo dugg rapidement rek ci euh, laata may jox ci ñëw DJ DJ Isbak mhm. yaa ngi koy wax sànq ni léeg-léeg bu ñu gisee koo xam ne ku baax ci Mbàkke la mhm. mais léegi bu ngeen di dem yéen mouvement bi mhm. ci yan intérêt parce que boo nee euh, loo xam ne dafa intre Mbàkke rek tey politicien bi dëkk Mbàkke loo bëgg a tuddee intérêt Mbàkke loo ko bëgg a tuddee yow waaw xam nga nit mën naa dëkk Mbàkke waaw mais nit ñi dañuy ëppalante njariñ comme mouvement Mbàkke moom moo ñor ni mu gënee amal njariñ askan bi que yeneen mouvement yi fi nekk autorité yi aussi dañuy ñëw posé wu kenn ku ci nekk tey dangay mën sa moroom ci benn ko côté. comme exemple mën naa jël élection passée. ba ñu sondé ba gis ne dañoo waroon la le candidat Gallo Ba. pour l' intérêt de Mbacké ak position bi mu nekkoon. ak fi ñu gis ni war na faa mën a yóbbu Mbacké. dañ ko rejoindre dem jàppale ko mais aussi bu ñu ko jàppale ba pare dañoo dem nekkaat nekkaat ci ci li ñu. mais bi ko jàppalee ba pare revenu bi ñëwaat na ci association ah ñun de mouvement bi mouvement ñun de gisuñu ko franchement te franchement par là ñun après euh, pendant les élections mhm. il y avait promis beaucoup de choses te loolu c'était pas pour nous l'association mais pour l'intérêt de Mbacké ak les membres du mouvement Mbacké moo ñu ñor parce que bay ci say oom am na yaa def des des groupements de femmes yu fi nekk mhm. ay booy soxla liggéey te ñooñu à chaque fois ñun dañ leen soutenir comprendre nga mhm. léegi nag dañuy bëgg ñun ku ñuy jàppale da yi bokk ci mouvement bi di xeex Mbàkke suba ngoon guddi ak bëccëg après nga gestu mais xala ngo dajut fa mais bari ñoo xam ne boo yoo xam ne fii leen dëkk ci Mbàkke moo liggéey waaw xam nga ci ministère am lan amee liggéey bari ñoo xam ne wax nañ ko fu nekk ñu gis ko yow loo tuddee kon intérêt Mbàkke man jàpp naa ne kay su defalee kenn wala mu defal ñaar xam nga actuellement on ne bi lañ nekk di wax waaw parce que tey gis nga Gallo peut-être que la mu tënk hmm. Hmm. na ko mais ñun actuellement fi ñu nekk mooy li ñu tënkoon ak moom lan ngeen tënkoon. lu ñu tënkoon mooy benn. Hmm. bokk na ci Gallo il a jël na des centaines de jeunes. waaw mais amul benn jeune bu bokk mouvement Mbacké moo ñor. te pourtant dafa taxawoon en pleine réunion mu nekkat su ma faloo du ma jël kenn bàyyi leen du ma jàppale kenn bàyyi leen mais amul benn membre bu bokk mouvement Mbacké moo ñu ñor bu mu jël. est-ce que compétence yi am na ci mouvement bi tamit nag xam nga itam nag. y a beaucoup de compétences. y a des ñu am nañu ñu diplômé le président même kii c'est un entreprise la di fay ay boy di former ay jeunes di def ñoom xal xam-xam former na nit ñoo xamante ni tey yor nañ ay place man mii je suis diplômé je suis un technicien en en électricité industrielle bâtiment j'ai fait la climatisation j'ai mes diplômes en en photovoltaïque actuellement maa ngi jàng maa ngi continuer sama jàng yeneen booy yi fi nekk am nañ ay métiers femmes yi fi nekk am nañ ay formation xanaa kay peut-être dafa ñëw ànd ak ñun élection yi jeex mu wan ñu ginnaaw. yow noonu ko tuddee wala noonu la demee ah mais noonu la demee maanaam waxuma ci cadre Mbacké en général mais diggante mag mouvement waaw diggante mouvement bi parce que la mu tënkoon nag le moo ñu ñor mhm. def ko pour dire vrai hmm. mais daal ci ci liggéey yi mu leen rek nga mën a wax waaw bu dee ci côté soo bëggee tam mën naa xuus waaw parce que ko xas xam nga tamit gis nga xam nga xam nga buñ gis nga bi élection yi ñëwee hmm. ci kër yëpp la dugg sukuraam mu ne voté leen ma wala ma voté leen dinaa jàppale jeune Mbàkke yi waa Mbàkke yëpp voté ko mu nekk ministre te boo nekkee ministre am benn fonction da am ay quota mais quota yooyu est-ce que day jël waa waa waa gin leen fa dugal que day jël waa Fongolim di leen fa dugal waa Mbàkke yi ko jàppale doole ji mu yor waa Mbàkke ñoo ko jox dëgg la kon par la force day jël jeune Mbàkke yi daa am fu ñu ko taxawoo moom fu ko dëkk bi taxawoo mu fay leen seen bor te loolu gàcce ngaalaama amu ci bu dee ko ci côté jàppale rek hmm. cinquante cinquante la waaw waaw kon kay xala nga doyut fi waaye def na def na le maximum waaw alhamdulilah parce que loolu c'est normal parce yàlla moom wërsëg bi du ñëw dinaan du ko jox faa mu jaar la ko ci nit ok léegi bala ñuy génn foofu rek ñu profité ci parenthèse boobu noonu gën a institut ci moom mhm. léegi euh, soo ma doon defal bilan galo Ba hmm. euh, depuis mu falu maire ah. ak bi mu nekkee ministère bi yëpp nii mhm. euh, loo loo fi gis loo xam ci liggéey non Gallo amul bilan ah. Gallo Ba amul bilan Gallo <laughs> bu ñu defee nga lu mu def xam nga gis nga man damay bañ ñuy jaa ñuy ñuy jaawalee parce que tey bëgguma ñuy nax parce que le département de Mbacké dañ leen na yàggal nax depuis l'indépendance mais dafa am ay compétence am loo xamante ne responsabilité état la la preuve mooy tëli yii nii biñ koy gas dañoo waxoon c'est le maire mais actuellement bi mu génnee ci état bi dégagé na ay responsabilité mu ne c'est l'état du Sénégal léegi maire dafa am budget te moom la maire Galaba il nous avait dit que maire bu am bu am compétence mooy maire maire ci budget am nga koy xamee waxoon na ko Abdou Mbacké Ndaw mu ne gisul lu Abdou Mbacke Ndaw liggéey ngir Mbacke ci budget hmm. li fi nekk ñu koy coow a kës néew état bu Sénégal ñoo ko def léegi gàllam moom boo génnee stade bi nga xamante ni c'est l'état du Sénégal. Hmm. maison de la jeunesse bi c'est l'état ak engagement ban passif ak engagement. Ah, parce que hmm. parce que moom il n'est pas xaalis bi. yorul projet bi yorul financement yi ni mu ko mën a tabaxee galo ba fi mu toll nii bu tabaxee euh, bu ñëwee moo tabax stade bi ak ak ak affaire yi dañ ko war a woo auditer ko xaalis boobu fan fan la koy jëlee. stade ay milliards ñoo koy defar. waaw cest à que am na croix rouge bi engage na ko la rouge mën naa ko wax ak euh, comment dirais-je encore euh, place publique bi nga xamante ni tey jii ba mu ko bañ ko njëkkee defar zeng ya dafa naaw ba waa Mbàkke kaas ñu doo koo dale te aussi la mu promettre woon waa Mbàkke moom galon mhm. maanaam départu gaynde arrivé muus. noonu ko tuddee yow. ah bien sûr parce que moom dane boole ma falee chantier yaa ngi ni 6 mois. Mbàkke dana commencé màjj pënd bi sonal leen su ma sama mandat bu xaajee mën naa jubiler su ma amul su ma amul euh, exemple bilan du ma présenté waat te la preuve mooy gis nga Gallo bi ko waa Mbàkke di votel exemple hmm. bureau de vote yëpp la gagné ñaari élection euh, jàllu fi waa dañ koo dóor ci bureau bi mu voté sax dañ koo gagné élection législative yii di jub si hmm. dafa boycotté parce que Baye Gueye Faye nee na y a xam na ni bu bokkee législatif dañ koy duur parce que la population bu Mbàkke dañ ko wan ginnaaw parce que Mbàkke mooy population boo xam ne tey mën nga ñëw wax ñu gëm la mais soo soo jëful. Mhm. dañ lay wan ginnaaw il n'est jamais trop tard mën na maanaam li mu promettre le département de Mbàkke mën na ko def ba tey ci kaw mu rab bu jegewaat askanam ba pare mu dem xool. nit ñi nekk ci dëkk bi ku mel ne tey le mouvement Mbacké moo a des mu ni ak li ñeen ñi wax bokkul parce que monsieur le maire fi mhm. ñëpp jotee galo dañu alhamdulilah rabbil alamin ndax euh, bi galo ñëwee. réalisation yi def ci dëkk bi ak maanaam ni mu yombee jot képp ku xewle ma nga ca mhm. yow lii nga wax ak li population bi ñenn ñi ci population wax bokkul population Mbàkke moom moo wax loolu ah loolu kay ñu ne dégg ak moom ñoo lay wax loolu mais tay man je suis très fréquent. mais itam ki koy contre mooy ki ànd ak moom rek. kon nan koy xam nga ñun suñu position tey exemple ñun. Hmm. mouvement Mbacké moo ñor. Hmm. ñun on n'est pas pour contre. parce que ñun ñu dem voté galo campagnol ko yaa ngi dégg yéene nañ ko ndam. waaw mais ñun mënuñoo ànd ci loo xamante ni aussi askan bi gisuñ ci seen bopp. Hmm. tey jii bu ñu defoon micro trottoir bu leen defoon micro trottoir ngeen dugg Mbacké ngeen dugg ci koñ yi. di ngeen xam ne li ma leen wax ni c'est